moom de tey mel ni samedi la wante daara moom daara la tudd waaw ñu bëri dañoo noppalu samedi waaye daara amul noflaay di jox loxo ñi nga xam ni ñuy ngi ci groupe bi ak ñi ci biti yëpp waaw di ci jagleel tudd tey nag Eh, ku mel na suñu najaay Tamsir Dramé ca Bronx ci yitte ju rëy ji waaye boo xamee góor gi Sëriñ Wuli Ture mi ko yar daa dégg yitteem ak suñu beneen mbokk góor gi abdu Fall Damel waaw bokk ci suñu waa kër maam borom Touba. ah bu ko defee kooku mën a dégg yitteem ñu ngi koy nuyu bu baax ku bëgg xam-xam la góor gi damel eh, suñu présidente nga xam ne ba ñu sosee ICFA rajo ba léegi moo yore leadership bi te lu ñuy taxawal rek mu jiitu ci muy soxna eh, Faatu Faatu Jaañ day Faatu Jaañ bokk yi di ko wooye Ndeye Fatou Diagne Gambien waaye ñoo bokk dëkk ca Saalum nag ñoo bokk Maba mook jigéenam suñu responsable politique ndeysaan dafa xaw tawat muy Adja Fatou Ndour ñu ñaan yàlla e, laal boppam ak loxoom bu sedd ba ba bépp tawat bu ne ci moom rus te defal ko képp ku tawat moo xam tawatu yaram la walla tawatu xol walla tawatu ruux walla tawatu lumo lumo na yàlla saafara yépp yi nuyu suñu weneen mbokk bu nekk fële ca eh, Maroc moom <laughs> eh, papam bi ñoo nekk ndar góor gi Lamine Wade moo ko jur ñu koy wax Serigne Mouhamed Mamoun góor gi Lamine moo nekkoon ca jumaa yi Serigne Abbas ci jarbaat la ci Serigne Abbas Sall yoon bi ñuy nekk ndax di nekk di ay xaleel dañ ko daan seetaan waaw mosuma gis ku neexoon ku neex alxuraan comme moom <laughs> ku mënoon tooñ waa Saalum la nag daan tooñ seen seen seen seen jànginu alquran waaw waaye xam naa bu dellu woon Saalum dina dina soppi <laughs> ndeysaan yal na ko yàlla dolli leer nuyu doomam bu baax di suñu soppe Mouhamed Mamoun ak suñu jigéenu bopp ca Nigéria waaye di doomi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu muy xaj Halima Halima Tijani di doomi e, Seydi Cheikh Omar doomi Seydi Mohamed al Habib doomi Seydi Mahmoud doomi Seydi Bachir doomi Seydi Habib doomi Cheikh Tidiane Chérif ko encouragé ci taxawaay yu rëy muy taxaw ci Abuja xam naa bëccëg bu nekk rek dinañu nuyu ay mbokk mu mel na ñu ngi woon ak yéen ci al axkaam al taklifiya wal wadaiya maanaam les préceptes légaux ñu jàngoon ci ñett ci aqsaam al axkaam al muy sabab nga di tuddee cause charte ngeen di condition ak maania mooy prévent pré loo xam ne dafa pré euh, nan la tudd prévention wala something that prevents from something else to happen euh, bu dee alaxkaamu sharciya at taklifiya ñu jàng ne juróom la muy waajib mooy li ngeen tuddee farat xaraam mu baax mooy li ngeen tuddee lu dagan mandub mooy li ngeen di tuddee lu ñu sopp waaw mooy sunna ci euh, luxatu al fuqaha parce que sunna ci fiqh bokkul ak sunna ci yeneen xam-xam ak li ñoo tuddee makruh muy lu ñu sib mu mel ni démb ñu ngi woon ci waajib <coughs> gannaaw bu ñu waxee ni mooy loo xam ne ku ko def te jublu ca topp ndigalu borom bi dañ la ci yoon ku ko bàyyi daañu la bindal bàkkar maanaam mbugal la caa juddoo <clears throat> mooy lu ñu digle te waral digle ga mu mel ni jàngoon nañu démb ñeenti xaaj ci xaaji farata yi ñu jàngoon farata boo xam ne waajib muayyan la ak waajib farata bu nga xam ne dañ ko ràññale amuloo choix bu dul moom nga def ko ak farata bu nga xam ne dañ ko lëmal am nga choix ci ay mbir boo ca def rekk matal nga farata ba ñaareel ba ñu ne farata ci ki koy defit ñaari xaaj la farata bi nga xam ne yow lañ ko sant keneen mënul la ca remplacer ak farata bi nga xam ne bu ko keneen defee mu doy ñu koy tuddee waajib ayni ak waajib kifaaya wala fardul ayn ak fardu kifaaya waaw bii bu ko bu bu ko ñépp defoon it du tere mu war la parce que yow lañ ko farataal ci sa bopp kenn mënula la ca remplacer waaye bii nag bu ko kenn defee mu wàcc ñi ci des bu ko ñenn defee mu wàcc ñeneen ñi ñu ne it farata suñ koy jooxee ñaari xaaj la farata boo xam ne dafa am waxtu ak farata bu amul waxtu farata bu am waxtu it dafa am bu waxtoom yaatu ak boo xam ne waxtoom dafa xat farata yi ci wàllu nattale ñaari xaaj la farata bu ñu amal limite ci ay yëf yu ñuy def lu mel ni nangami rakk yi ñuy julli tisbaar dafa am limite ak farata boo xam ne amut limite lu mel na baaxee wayjur walla dépense bi ngay jox sa soxna kenn du wax ne nangami yoon nga war a nuyu sa papa par bés dañuy xool ci aada fa nga dëkk euh, baaxee sa wayjur nan la fa te mu dëppook sharia ndax alaadatu muhakkama waaw ñu tàmbali woon nag <clears throat> loo xam ne moom la ñoo euh, jottali ko tey mooy masail tataallaq bil wajib ay masala yu nga xam ne dafa am affaire ak li ñoo tuddee waajib waaw dafa am affaire ak li ñoo tuddee waajib bu njëkk bi moo di gannaaw wax nañ ne waajib dafa am bu waxtoom yaatu ak bu waxtoom yaatuwul bi nga xam ne waxtoom yaatu na su borom bàyyee ba ca mujjug waxtu wa su ko borom yéexee ba ca mujjug waxtu wa yàlla atte mu dee ndax dina am bàkkaar c'est-à-dire tisbaar jot na borom julliwut ndax am na choix julli ko ci njëlbenn waxtu bi am na choix julli ko ci waxtu digg bi am na choix xaar ba ca mujjug waxtu wa maanaam waxtu muxtaar wa moom mu bëgg moom mu bàyyi ba waxtu muxtaar wa di bëgg a jeex julliwut yàlla atte balaa moo julli mu faatu ndax dafay am ñu ne dañuy xool su fekkee ne yéene mooy mu julli ko balaa waxtu wi jeex su yàlla àttee mu faatu balaa waxtu wi jeex du am bàkkaar su fekkee nag fasut ko woon yéene julli mu mel ni kiy liggéey ne damay bàyyi ba ñibbi fay sama booru julli yi ma ne xaw ma ku la lebal waaye yàlla àtte balaa moo ñibbi dee donte ci biir waxtu wala dee dafay am bàkkaar ndax yéene ba lu dul <clears throat> mu fekkoon ne nag yéene woon na ne dina ko julli ci biir waxtu waa su fekkee ne nag yée moom xam na ne balaa waxtu wi jeex dana dee mu yéexee ko ndax dafay am bàkkaar bu fekkee ne dee na ñu ne waaw dafay am bàkkaar luy loolu nan la nit di xame ne dina dee balaa waxtu yu jeex mooy misaal mañ joxe woon démb kii ñu jàpp ci crime bu mu def ba yoon saxal ne dañ koy rey nit ki koo xam ne dafa reyoon nit ñu wax ne trois heures lañ ko war a rey moom bu waxtu wi jotee rek dafa war a julli su xaaree ba trois heures julliwut ñu rey ko dafay am bàkkaar donte waxtu wi jeexagut waaye xamoon na ne euh, waxtu wi jeex du ko fi fekk ñaareelu masala bi ci masailu waajib mooy wax nañ ne waajib muy farata dafa am farataay jëmm am farataay doy farata boo xam ne yow la war dul keneen mënul la koo defal ak farata boo xam ne bu ko kenn wala ñenn defee mu wàcc ñi ci des farata boobu nag nga xam ne bu ko kenn wala ñenn defee mu wàcc ñi ci des léeg-léeg mu ràññee ko nekk farata boo xam ne kenn mënu mënula caa wut lu mel ni jihaad farataay kifaaya la bu amee ñu nekk ci armée jullit yi di défendre jullit yi ci seeni noon dafay wàcc ña ca des ñu mën a def yeneen waaye tey bu nit ki nag jële boppam boole ko ca ña war a dem taxawee loolu ba dugg ci toolu xare ba amatul droit dellu dafay ràññeeku ci moom wala noon yi engagé ñu ci suñu dëkk ñun jullit yi képp ku nekk ci dëkk ba amoo droit génn dëkk ba amoo droit bañ a xeex wala tey nga gisoon koy làpp ñun fukk lañu bu amee ñaar ñu ko mën a xettali dem xettali ko wàcc na juróom-ñett ñi ci des waaye su fekkee ne man kese maa fa nekk gis kuy lab ma mën koo xettali farata bi dootul nekkati farataay doy waaye farataay jëmm lay nekk maanaa dafay ràññeeku ci man ma def ko keneen du ko def ku dut man ndax man rekk a fa nekk waxoon naa leen it ni farata ak waajib fard ak waajib jumhur dañ ci wuutee ak al ahnaaf ahnaaf mooy waa kër abu xanifat abu xanifat moo donn ba pare moo liit école ahlu raay buñ ne jumhur di nga dégg mooy ñi ëpp ci borom xam-xam ku wuuteeg ñoom yow yaay minorité léeg-léeg nag dafay dal lu bari ngiru Abu Hanifata ndax dafa di intellectuel boo xam ne dafay utiliser contexte ci texte yu bari ni muy dalee it ñeneen ñi waaye particulièrement waa kër Abu Hanifata mooy école ahlu raay waaye li gën a siiw ci borom xam-xam yi mooy waajib ak fard benn lañu loolu buñ demee ba ca kanam ci masail fiqhiya dinañ leen jox détail insha allah ci lanay waajib inda ashaabi eh, abi xanifata ak lanay farda indahum ñeenteelu masala bi ñu jottalikoo tey mooy maa laa yatimu alwaajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xam ne su amut waajib du am waajib la lépp loo xam ne waajib du mën a mat tànk lool la amut loolu dafay mujj nekk waajib ana luy loolu xam ngeen ne jàpp dafay nekk charte pour bu nit mën a julli jàpp moomu nag nga xam ne waajib la ma def ko bu ma ko bëggee def foog ma teewal ndox xam nga teewal ndox ci boppam rekk kese warut waaye bu amut waajib bi di njàpp du mën a am moo tax kon fok ma teewal ndox pour mën a jëfandikoo waajibu tahaara moo xam njàpp la wala sangu set ci ku sangu set war wala dindi sobe ci ko am ak sobe mbir yi nga xam ne waajib daf cay mën a amee maanaam suñ amut waajib du am ay mbir la yu taqali ko ay xaaj lañ am na xaaj boo xam ne mi ngi ci kattanu mukallaf bi maanaam mukallaf bi mën na koo def am xaaj boo xam ne mu kallaf bi mënu ca dara am xaaj boo xam ne mu kallaf bi mën na koo def ñu ne ko na ko def am boo xam ne mën na koo def waaye def loowuñ ko ko ana luy loolu xaaju waajib bi nga xam ne xaaj xaaj bi nga xam ne waajib du am maanaam mënoo def farata tànk amut te mënuloo ko amal yow mooy lu mel ni jant bu so xam nga mënoo julli timis tànk jant sowul waaye yow mënoo sowal jant am na it xaaj boo xam ne tànk amut farata bi du mën a am mën nga ko amal gaa waaye laajuñ la nga amal ko mooy lan mooy nisaab ci azaka fekk amuloo alal ju mat nisaab azaka warut la waaye wuti alal ba mat nisaab bu dee mën nga ko it kenn waralut ko ci yow ñetteelu xaaj bi nag mooy xaaj bi nga xam ne mën nga ko ñu wax la ne la fokk nga def ko ndax bu amut farata bi du mën a am mooy lañ njëkk a joxe comme misaal wut ndox pour mën a jàpp walla jàpp pour mën a julli wala dem ca jumaa ja xam nga julli jumaa mooy farata waaye boo demut doo mën a julli juma kon dem gi nga xam ne fekk amut julli jumaa kii farata du am dafay nekk waajib te dafay war yow nga def ko juróomeelu masala bi mooy ma laa yatimmu tarkul xaraami illa bi tarkihi fa tarkuhu waajib loo xam ne feeg bàyyiwuloo ko doo mën a bàyyi lu xaraam te da ngaa war a bàyyi lu xaraam la dafay war mooy lu xalaal ak lu xaraam buñ jaxasoo te mënoo xàmmee lu cay lu xalaal mënoo xàmmee lu cay lu xaraam bàyyi lépp dafay war ndax boo ko jëfandikoo doo mën a xàmmee luy lu xaraam ba bàyyi ko te da war a bàyyi lu xaraam lépp loo xam ne suñ ko bàyyiwut duñ mën a bàyyi lu xaraam bàyyi ko dafa war mu ngi mel ni laaju saxaaba ya ki nga xam ne dafa yónni xajam mu rëbbi ba mu demee di jàppi xaj ba rëbb mu fekk fa beneen xaj boo xam ne moo dend ak rëbb ma xamut ndax xajam bi mu yónnee ko jàpp wala xaj booboo ko jàpp dafay ñu ne kooku mënta lekk rëbb ma ndax xamut lu xaram la walla lu dagan la te loo xam ne buñ ko bàyyiwut duñ mën a bàyyi lu xaraam bàyyi ko lu war la wala tey nga jisoon ay soxna nga bëgg caa takk kenn juróom lañ waaye kenn ci ñoom namp nga moom te bu nga boo xasee nampak ak nit mënatoo koo takk sa mbokk la waaye xamoo kan la ci ñoom waaye xam nga ne kenn ci ñoom la juróom yëpp ay xaram ci yow ndax lépp loo xam ne feeg bàyyi wuñ ko duñ mën a bàyyi lu xaram bàyyi ko dafay nekk waajib dafay nekk lu war juróomeelu masala bi juróom benneelu masala bi te ci la tëje mooy alficlu nabawiyu ida kaana tafsiran li mujmalin hal yakunu alficlu waajiban mithla aqimu salaa fa hal kullu afcaali nabiyi sallallahu alayhi wa sallama eh, fi salaati waajibatun mooy jëfi yonentu sallallahu alayhi wa sallam su fekkee ne dafay firi luñ ba mbëstal ndax jëf ja dafay war lu mel ni taxawal leen julli xam nga taxawal leen julli dañ ko mbëmbëstal baatu julli ci boppam baatu salaatu ci boppam ci arab daanut firi niñ koy defee ñun salaatu mooy firi ñaan wa salli alayhim inna salawatika sakanun lahum googu salaatu ñaan lay firi foofu waaye yàlla bu ne aqimu salaa te jubluwut ci ñaan kooku lu ñu lëmal la fokk yonent bi leeral ko ba mu wanee ne it jubluwut ñaan julli gim jublu mooy luy tàmbale ci allahu akbar am ay jëf yuñ xam ak ay wax yuñ xam jeexee ci asalaamualeykum jëf yooyu ci biir julli gi yonent bi def ko ngir wane nu ñuy jullee ndax jëf yooyu yëpp dafay war gannaaw julli aqimu salaa bu ko yàlla waxee te ndigal ci alquran su ñëwee feek amut lu koy génnee ci war lu war la xam nañ ne julli dafa war waa bu ñu yonent bi wanee ni ñuy jullee ndax jëf ak wax yim def ci biir julli gi yëpp farata lay doon ñu ne déedéet jëf yëpp du nekk farata kon nan lañuy xamee lu cay farata ak lu ca dul farata ñu ne ci yeneeni tegtal lañ koy xamee maanaam yonentu sallallahu alayhi wa sallam leeral ñu ne lii farata la leeral ñu ne lii lu mu sopp la lu yàlla soppu la ñu def ko ca leeral ñu ne lii mënees na ko def lii mëneesu ko bàyyi lii nangam lii nangam ca tegtal yooyu ci alquran ak hadis ca la ñuy xamee lan nay farata ci jëf yi ak lu dul farata ci jëf ya kon nag juróom-benn yi la ñu bëggoon a indi ci masail euh, yoo xam ne tataallaqu euh, dafay aju ci li ñoo tuddee alwaajib masail tataallaqu bil waajibi waaw muy masalaam ku yéexee waajib ci waxtu wu yaatu ak waajib kifaa yi boo xam ne léeg-léeg dafay jógee ci fardaay kifaaya nekk fardal ayn ràññeeku wala li ngeen di e, tuddee e, e, fart farata ak waajib ndax benn lañ wala duñ benn te jumhur ne benn lañ ak masalaam lépp loo xam ne feek amut lu war du mën a am dafa war ñu joxe ci ay misaal ak masalaam lépp loo xam ne feek bàyyiwuñ ko duñ mën a bàyyi lu xaraam te bàyyi lu xaraam dafa war kon loolu dafay war ñu joxe ci ay misaal ak masala mu mujj mi di ndax lépp loo xam ne yonentu daf koo def pour expliquer lu ñu mbëmbëstal pour faram-fàcce lu ñu boole ndax jëf ya mu def yépp pour faram-fàcce la ñu boole te la ñu boole loolu di farata ndax jëf yooyu yépp dafay nekk farata ñu ne déedéet waaye la cay farataak lu ca dul farata yeneen tegtal ñooñu koy xamal yu jógee ci yàlla akub yonantam haada wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ali malaadu naas fi diinin wa dunya badulun duna manin bi nawaali fi ixtiyaadin